ak li may bëgg président Macky Sall yépp oui. su su ma ko nangulee mu def ko. Mhm. ma maanaam loi bi àndoo ci. non kon ba tey di ko dama ne ma xam nga li ko indi démb démb démb 7 TV laa ko seetaane ci seen tele ñaari doom ku am ñaari jarbaatam lakk ci cocktail molotov ñor ba mënuñu leen ça fait mal. fii nga ko seetaane. ci 7TV ñoo ko def def naa benn documentaire ñuy wane cocktail toog bu ñu sànni euh, am ñaari xale yu jigéen yu ci lakk ba ci seen seen wéyjur ne ba may dem di ko jëli xàmmewuma leen parce que dafa dañu ñor ba xàmmewuma ça fait mal. man bu doon sama doom la. fan la woon loolu. am na benn document bu ñu wanee lompul bi ba pare. Hmm. après dañu indi loolu dugal ko. 7TV c'était hier li ma njëkk xool dama ne. bu doon sama doom man lañ ko def. Hmm. du ma mës a baal ci doomi aadama. Hmm. def ko ngir seen bakkani bopp wala def ko ngir bakkanu nit ñu jël sama ay doom ci loo xam ne seen yoon nekku ci ñu waroon am avenir ñu jël cocktail molotov sànni leen ñuy lakk ba kooku bu dee sama doom du ma leen baal. président Macky Sall nag am na fu mu toll ci renseignement maa ma fa mais bi ñu joxee wéy jur bi li mu njëkk a wax mooy baal naa ñaka def. naa bi ci setti baal naa ñu ko def man bu ñu ko defoon sama doom ba ba may dee duma ko baal ki ko def def ko weer ñaari weer ñetti weer un naa deux ans nga génn topp mbedd mi di dox man ñàkk naa sama ay doom te def ko defuñu ko ngudul ay nit wala ci seen teyu ci seen teyu lu bakkan d'accorduma ci man mais nag président am na ay éléments yoo xam ne amuma ko te dafa woote d'abord ne. démb mën ngay man ngay xool. <laughs> waaw dama mën ngay waxal mën ngay wax. très bien dafa am ñoo xam ne président dafa ne kaay leen ñu euh, ànd pour réew mi am dal am jàmm niveau bi mu toll ba di ko wax tolluwuma fa man. Mhm. la mu xam xamuma ko. Mhm. man li ma mën a ji li ma gis ak sama bët démb bi ma ko gisee dama ne waruñu la dañu war a rey ñoom parce que xal bu ndaw bu la lakkee day jàpp ci xol ñaari xale yu jigéen lakk ba ñor. ñi ko def après dañ leen di bàyyi ñuy génn nekk ci yenn nekk ci seen yéenay bopp. loolu bëgg naa xam fan la de. loolu non euh, boo ko laajee kii dinañ la ko parce que bi ñu wanee Lompoul ci affaire zircon bi démb bi mu paree rek dañu dugal loolu 7TV man 7TV rek lay seetaan. ñu ni bon peut-être loolu moo rey euh, xale yu jigéen moom mooy bi ñu sànni woon yaraax. Ah, cocktail molotov mooy bi ñu sànni woon ci bis bi. Ah, am na benn tata bu ñu sànni woon cocktail molotov. am ñu ci am ñu ci dee. d'accord. ñu dem ci wayjuru kooku wayjuru kooku am lu ko metti mu ne duma ko fàtte mukk ci àddina ba ma demee di xool samay doom ñemewu ma leen a xool mm. ndax nañu mel sa fait mal te ñu ko def dañ ko def ngir seen teeyu bakken ak tappale ngir politique dara taxul ñu def ko nag amul kenn ku la wax ne la lii laa ko def lu dul soxor ak bon loolu mooy commencé di am Sénégal loolu moom mooy je le condamne fermement man man laa wax président nag fa mu toll ak fa ma toll xëj na xëj na niveau yi tolloowuñu xëj na moom woote na jàmmi réew mi woote na Sénégal yëpp ñëw dal ba ba muy dem comme les yi wax tey jàpp na ne moom buy dem bàyyi ay prisonniers ci ginnaaw lu mu ëpp mille mille cinq cent xëj na neexul ci image réew mi moom jàpp na ne moom nag président de la république ne bu ma ko yombaloon mais lan moo nekk nag ci projet boobu lan moo ciy nekk lan lay def parce que euh, bu ñu nee amnistie bon est-ce que amnistie générale la bon je ne sais pas parce que xam nga comme nee na da koy dugal dama bëgg xaar ba mu dugal loolu ba ba ma xam man lan ak lan ak lan ak lan ak lan ak lan la ci dugal te amnistie boobu dina même dina gis ñoo xam ne rey nañu nit te du te du kii te du événement bi rey nañu nit feneen mais loolu daf leen di loolu daf leen di daf leen di euh, dañuy génn ñoom tam dem ñibbi parce que bu ñu nee ku fi rey diggante bi ba diggante bi. deux mille 2021 ba 2024. non mën na narul yombe noonu. Euh, ñu ne dañu koy def man ànduma ci moom moo tax ma ne nañu xaar man damay xaar. pour bañ a wax waxu mbedd. ba gis euh, lan la bu boobaa dinaa ci mën a wax sama axulaahi taala